大家这么喝的，我得跟他聊，你得聊，我你给骂我一下。 xool ba xam c'est la possibilité mën a dugg ci biir quoi d'accord Anyway, Ada yang tuh iya. Kamu kikir pulak ni nak tak permasalahan. Mengadu, mengadu, mengadu. Mereka ini sangat teruk. même temps que je suis en train de faire le film. tout à fait oui on peut parler. n'y <laughs> a pas de souci. est-ce que est-ce que revenir sur ce que réellement. Euh, alors moi, j'étais au studio niveau 2 euh, on finissait l'émission Régal et puis après, la croisée Moussa Diop ci mu ne ma ci kaw day ko fan troisième alors je pensais que c'était minime mais apparemment euh, chef Excusez-nous, chef. C'est bon, c'est réglé C'est réglé ah, ah, apparemment. Bon, voilà. Donc, si, si, apparemment, ils, sont en train de, de, régler ça. Légui, donc demain Moussafa di il était 19h 20h moins donc Issa Tine mon en plateau il m'a dit que c'est à 19h50 le commerce. donc ils étaient obligés d'arrêter l'émission bi pour mon pour voilà génn. évacuer tout le monde voilà. mais quelles sont les conséquences yi nga euh, def ko. bon de visu conséquences, je sais pas mais je sais que le studio principal mooy il dit à di certain seetaan ou « wala édition du soir wala les plateaux du matin foofu je pense que c'est fini. c'est fini bu ma j'ai l'impression mais là, waral tàkk tac bi on m'a parlé de courant.

alors ba légui sapeur pompier ñu ngi ni taxaw ñu ngi wëyel liggé bi ngir li fay tak tak yoy le mais ba tay li nga xamanteni Euh, ba léegi ñu ngi ci liggéey bi euh, di wéy di euh, fay li nga xamante ni moom mooy takk-takk yooyu le di xamal ni mbirum courant nag noonu la mos a demee tey boo xoolee bâtiment bi ak nu mu bindoo ak li nga xamante ni moom mooy tey tolluwaayam di nga xam ni bu fi takk-takk amee donc dina am conséquences yi nga xamante ni dina ko am ci wàllu matériel ak yooyu mais itamit di tey massaw li nga xamante ni mooy le groupe

Euh, fii ci biir euh, Walfadjri si ngeen ko noonu ñoom sapeurs-pompiers les euh, jàmbaar quand même du feu ñi nga xamante à tout moment ils sont là pour li nga xamante ni moom mooy dimbali askan wi mais tey dans le cadre ci li nga xamante ni mooy incident wala incendie bi am ci ci Walfadjri ñoom ñu ngi amal liggéey bu rafet donc lii mooy li nga xamante ni moom moo fi xew fii ci Walfadjri danaka studio bi nga xamanteni ni ci la ñuy seetaanee penco studio boobu moom moo takk euh, ba jeex takk euh, ci biir euh, groupe bi lé alors liko waral moy électricité moy walum courant yaakaar naa bo matul branchement yi nga xamanteni mom lañu def bo matul mom moy déclencher yii ni ni mel fi ci biir Walfadjri alors comme ni ngeen ko gissé noonu ci kaw danaka lépp arrêté na pour le moment au sein euh, du groupe Walfadjri rawatina li jëm ci émission yi ñu amal euh, daanaka arrêté le programme courant bi ci boppam sax euh, ci kaw lépp arrêté arrêté nañ ko. donc ci souffres le la gars yi que di jëm a nuñ avec les sapeurs-pompiers déjà sur place mais aussi des autorités qui ont effectué le déplacement pour s'enquérir de la situation. di leen ni fii ci euh, groupe Walfadjri moom moo am euh, incendie ay takk-takk euh, ci studio nga xamante ci lañuy défé émission yi studio bobu moom moo xëy takk te dara warul ko lu dul mbirum courant manam électricité dinañ jëma xol ñi nga xamante ñom ñofi nekk muy sapeur pompier ñoom itamit seen réaction pour savoir réellement li xew.

Euh, ngir jéem a am image yi ci biir